auzubillahi mina seytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim sant yàlla dul ci sangu sang yi Seydina Muhammad sant suñu ñaari waajur sant suñu wàccale Cheikhul Khadim di leen nuyu di leen ziar yéen ñi nga xam ne saa su ne yéen a baaxoo di jàkkaarloog Waarwi TV tey jii nag di bis bu njëkk ci koor bis bu njëkk ci koor ku dikk fii ci Daara Khoudoss ñëw kër Baye Ridial sekk ñu fa su yéenee dikkee ci ndogu yi ñu xool waa kër Baye Cheikh Ridial naka la ñuy defee seen premier jour koor ndax ñoom dañoo yàgg ak ndogu ndax Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul lañuy togg ay ndogu di ko yóbbu waa seen Cheikh Tidiane ku ne xam leen ak waa Daara Khoudoss ñu nekk nag ay jong ay jëwriñ yoo xam ne macha allah nekk koo xam ne la seen maam ju baax ja defoon seen bàyyi yu baax doon ko def ñoom tey boo dikkee fii ñu ngi koy mottali bo di ko matal te di ko jëfee mu nekk bis bu am solo ci ñoom ndax daaw ku ne xam na mbas ni mu demee woon ci réew mi dema ko ci àdduna ba waraloon daaw la xewoon daaw xew ja xew-xew ba ñu ñaan suñu borom mu tàqale ñoo moom ci kattanu yàlla yonent bi bare nii ñu koy defee ñu ko ndax danoo namante woon di naan murid danoo namante woon murid danoo namante woon a gisante murid danoo ni lan xam ñun murid toggu ndogu du yóbbu kër sëñ ba li leen xam tey nag fii mooy premier bi si koor ndax bu soxna jaara taxaw fii ak waar bi di kër baay Seex Rijaas Sekk di ko fa def naa mën a ndax di sant di gërëm njabootam gépp nag rawat na si Cheikh Ami mi nga xam ne mooy sunu ma mooy sunu xarit nekk sunu sëriñ nekk sunu jëwriñ ci kër gi saa su ne lépp loo xam ne rek jot na dañu cey boole di cey boole waar wi TV moo waral tey ñu taxawaay bi fii ma ànd ak sëñ Saani ci ci ci kàddu gi soxna jaara bi ma séenee dugg ci biir kër gi won leen waa kër Bara Dia Seck naka la ñuy waajale tey ji seen premier jour ndogu naka lañ koy defee ak la lan lan lan fiy def tey ak lan lan lan fiy jëf tey bu leen dara raw incha allah ak koor gi mboolem kër goo xam ne rek nekk nga fii ci dëkk bu sell bi ci Touba incha allah bu Ardo TV dana ànd yow won leen naka la ñuy toggale ndogu tey jii nag moom macha allah ci 2021 premier jour koor ñu ñaan si borom tàqale noo mbas ban mañ a dellu ca lan xamoon ndax murit li la xam yàlla defal ñu jàmm suturaal ñu yàlla yàggal sëriñ Mountakha Bachir te wérali cëram yàlla tàqali noonu mbas ñu ñaan ci weeru koor bu sell yi yàlla nanguñu sunu jàmm yàlla ñu lépp loo xam ne yéen def nañ ko ci suñu borom mi nga xam ne mooy nangu ñu ko kon nag ñu ànd sëñ Sané dugg ci biir wan leen kër gi naka la ñuy waajale eh, eh, ndog yi premier bi si ndog yi ndax Cheikh Ridial Seck ci jëfandigal rek la ko ñëpp xame woon asalaamaaleykum wa eh, waar wi TV ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare di nuyu seeni auditeur ak seen auditrices yëpp ak fu ñu mën a nekk ci àdduna bi di leen siyaare di rafetlu seen teewaay fii ci kër gi ak seen taxawaay ñu ngi lay nuyu Soxna Jaara ak jëwri ak jëwrin ji nga àndal sànq rek yëpp ñu ngi leen di nuyu bàyyiwuñ kenn di rafetlu naka jekk seen teewaay ci mboolem. saa bu kër gi xewlee rek ci programme yu mel nii waaw ñu ngi siyaare mboolem nag ku ñuy seetaan ak foo mën a nekk ci bis bu am solo bi nga xam ni mooy bis bi jiitu ci weeru koor di weer woo xamante ni mooy gë mooy weer wi gën ci weer yi di bis boo xamante ni itam ah, ah, gis nañ ni bis gënewul moroom ja lu la ci xew kon ñu ngi leen di siyaare ci bis bi di sàkku itam ci ku ñuy ku ñuy ku ñuy seetaan rek ñuy sàkku ci yow ñaan ca lay fasaale ci liggéey bi ñu nekk liggéey bi nag ni nga ko waxee euh, mooy euh, euh, lan moo waral ñuy togg ndogu li ko waral de ñun xamuñu ko waaye xam nañu ki tax ñu ñu ko di ko ñu di ko def li ñu li ñu li ñu li ñu li ñu waral li ko waral xamuñu ko. la tax mu digal ko xamuñu ko waaye xam nañ ki ko digle ak kem ko digal euh, day digal loo xam ne nag bari na ñu koy defee ni koy defee ca nañ ko sañe sañewuñ ko ni ndax dañ cee am digalu Serigne Touba euh, sëriñ Touba moo ko digaloon maam Rijaal ci euh, bis ni démb rek bu weeru koor masaan jot ci njaareem day wax jëwriñ ji wax sëriñ Malick Ndiaye mu yëg la ni ku tedd ki ci njaareem nee na. ki ñuy digal ñuy def di ñu tere ñuy aaye ñuy bàyyi nee na euh, na ñëpp séntu weer wi biñ séentoo weer wi ba gis weer wi sëriñ Touba waat ko ba mu ñëw ni ko foo jaaroon na nga fa jaaraat yëg la ni euh, euh, képp ku desal desu xadd na ko yët sëriñ di jaar sekk ca kër sëñ Massamba jot sàmm ndax moom wóorloo wuñ ko dañ koo liggéeyloo sëriñ Malick Ndiaye jaar fam jaaroon. Euh, <clears throat> jaar fam jaaroon ki ñuy digal ñuy def di ñu tere ñuy aaye nee na képp ku desal desu xadd na ko yët sëriñ moo Seck Ridial bi am na si ñoo xamante ni sax ci fere yi nee nañ seenu farlu ak seenu njàmbaar tax na ci guddi gi dañoo rey gàtt biñ ñëwee euh, teraanga yi yaatu lool tëgg moomu ngeen dégg moom la maam Ridial yoroon ca njaareem di tëgg ndax sëriñ Touba bu daan um koor borom ndomba tànk yëpp dañuy ñëw fi moom Euh, fi lañ daan barkeeloo premier suur koor gi mu ni mboolem lu ko am ndombak tànk ci cër suñu borom rek yaa ngi fii nii dina tëggu ba mu naaj ma xam boroom xam-xam wala benn borom ndomb tànk dina ñëw laaj ma lu waral lii bi mu defee loolu tëgg ba mu naaj mu door a wax jëwrin yi ñu xewlu daani leen fa ma diggee woon ak Serigne Touba lii yàgg na lool ndax euh, du woon fii ca du woon tey fii yàgg na lool kon loola ndigal la loo xamante ne ya ko waral bari na lool ya ko waral du lenn du ñaar du ñett waaye li ëpp solo rek ndigal moom bu bu waddee rek daanu ci am murit dafa mel ni lu ñu tënk la doon la yeneen yi détails yi ci biir nag mooy la ñuy saraa waaye li ëpp solo mooy maam Rijaal euh, Serigne Touba Seexul yi moo ko digal nee ko Rijaal de ba mu koy wax demal ma ca naaj wa man ma nekk la ci ker gi ndax man kat Rijaal ku Euh, doon sa bindkat nekkal ma ca naajoori jàll ma ma ma toogale ci ker gi di sa bindkat jarak ju ma lekk sag weexal suñ borom dina ma rus sa jàngoro kon loolu mooy fitna bi ñu amee nii képp kuy rijaal wala ngay sol tani bii na nga xam ne ca demal ma ca naaji sëriñ Tuubaa bi fitna boo am ma ma nekkal leen ci ker gi moo ko moom moom loolu moo ko waral kon ndigal li foofu la bawoo woon ci njaareem mag ñi daan ko jël di ko doxal sëriñ rijaal maam rijaal moo ko daan doxal ba mu jógee moo moo mu bàyyee ko taawam bu baax bi di Serigne Cheikh Fatim mi ko fi njëkk a wutu diirub li fi nekk mu jël ko di ko doxal bi mu fi jógee ñu jox ko sunu wayjur Serigne Amdi Seck Rijaal mu di ko doxal andi ko fii ndax kër Rijaal gële gële ca Touba kër Rijaal gee ca foofu lañ ko njëkkoon di def waaye moom bi mu ñëwee toogee xalifa maam Rijaal féete fii moo tax mu daan ko andi fii ajuma bu ajuma lañ ko daan def waaye moom moo ko def bis bu set loola nag euh, bi ñu ñëwee bi mu ci jógee Serigne Cheikh Diop mi ko fi wutu jël ko di ko doxal diir bi mu fi jógee Serigne Cheikh Fental Mouride Sada bi fi jógee bu yàggut ñu ngi koy ñaanal bu baax moom mu fekk feeti fa lay jànnatu di ko defe foofu ñun ñu koy defe fii ah ci farlu nag comme niñ ko waxee aku njàmbaar ak pas-pas moo tax lu yokku lu ne ma ngay wàññeeku ndax ndigal li forme bi moom nañ fexe ba dara du ci sens forme bi mooy ni ko Serigne Touba digale woon Mamadou Diall forme bi dara du ci sens waaye taar beeg kàttan bi lépp lu ñu mën ci yokk ko dinañ ko def loolu moo waral bu njëkk ay ginaar la woon léegi dem na ay gàtt ay nag jaar na fi ki gileem ak yooyu yëpp ba ci ren jii nag am na tuuti coppik gu ci am ndax xam ngeen ni xew-xew daaw bi mu amee euh, euh, mm, njaboot yi dajaloo gi lañ doon bañ moo tax ñu jëloon lépp andi ko ci ay ginaar di xayma lañ daan def ci gileem ak i euh, gileem ak i ak i ak i nag ñu di ko xayma ci ginaar di ko def bi ñu yëgee loolu kilifa yi ñu koy defal. ñoom ginaar yi ñoo leen gënal moo tax sëriñ bi ni ren nañ ci nañ na na na nañ ko suñu ko toggee kii suñu bunt ci sëriñ tuuba foofu lañ koy yóbbu muy kër sëriñ Moustapha Mbacke Mohamed ndax euh, bu leen fàtte ni euh, sëriñ Touba maam Ridial la mujj a liggéeyloo moom la mujj a seexal ca liggéey bu mujj bi mu ko mujj a liggéeyloo itam ba mu koy wutloo ceeb yaa toni ceeb yaa Euh, euh, mba kii diw yaag ak matay ci matay diw yaag ak euh, gàtt vingt-huit gàtt yaag ak façon tiraanga yooyu nga xam ni bi ak dundam ci niñ mën a wax dese ñeent fan la ko woo jox ko ndigal loolu ni ko bis boo ñëwee ci gis ma jafe la na nga gis ku mel ni Moudou Moustapha na nank ko jox bi maam Rijaal daaw di wuti àddiyee yooyu bim mu bi mu daataan ñëw ci la ko tedd ki ñibbi aljanna Cheikh Mouhamadul Moustapha Euh, mam ko tuddoon mu dem jébbal ko ko loolu mooy sunu joxoñ ci Daaru Xudoos euh, xamaloon na ko itam del moom Serigne Touba del togg ay ñam di andi di ma ko andil xamaloon na ko bis boo demee itam ba gisatoo ma wala gisatoo lu bokk ci man dana la doy sëkku Serigne kon ñun ba mu fa rek mënoon nañoo yem ci ndigal loolu di togg ñam rek di yóbbu fu Serigne Touba di yóbbu ci kër njaboot Serigne Touba gi waaye loolu mooy sunu joxoñ ci Daaru Xudoos loolu itam loolu mooy moo waral ba fii may waxee yow nii itam. ci ëttub sëriñ euh, Mbàkke Soxna Lo ca taawam bu baax bi nekkal ko fi muy sëñ Moustapha Mohamed foofu la ñuy joxal jëf ci. waaw ndey ndeysaan dëgg la wute na daaw waa ndax jamono day dox ndax liñ doon dund daaw dañoo dox ba àgg fa léegi nag dox nañ ba paase ko nawoon fa woon léegi la ñuy def népp luñ ko daan doxalee démb ak barki démb njaboot yi ñu àndal ak yëpp dañuy maase ci sellal wut nañ commission ci waañ wi. ñu war a saytu lépp leen lu ne teg nañ ko ci ay normes yu leer euh, bu ñu paree àndandoog njaboot gi yëpp jël ko yóbbu dem jébbali ji sëriñ bi. waaw toogaayu Cheikh Ridial ki ko fi toog fii mooy Cheikh Ridial Seck gëm Bamba ndax euh, sëriñ Cheikh Fental Mouride Sadikh moomu euh, min 2000 ba vingt 2021 moo fi toogoon toogaayu maam Ridial nekk xalifa maam Ridial mag ma waaye ci at mi rek ci biir at mi ñu nekk rek ci la ñibbi aljanna ca wetu way juróom bu baax ba. léegi nag ki fi toog jataayu maam Rijal mag ma toog fa jataayu sunu wayjur sëriñ Amdi Seck Rijal mooy Cheikh Rijal Seck mi gëm Bamba moo toogee ñaari jataay yooyu yëpp ñu ngi koy ñaanal nag ndax euh, liggéey bi wax dëgg yàlla wàññiwu da ko yokk euh, ñu ngi koy ñaanal mu àgg ni yoon ba ñu am benn gàllankoor ci ànd ko ak ñoon barke Cheikhul Khadim ñu ci dundal loo xam ni mbirum maam di jàll woon bu Serigne kon mboolem ku fi teew rek di dundal loolu Serigne bi sant na la gërëm na la ci loolu xam naa ni mu bëggee jataay bi du gudd ñetti kàddu ba ñeent suñu digal dabaatu du ko romb wax na ni suñu dalalee ñëpp dalal suñu mbokk yi journaliste yi fi teew bi suñu noppee ñu jël kàddu gi jox ko Mamor Mbaye mi nga ni euh, koo xam rek xam nga ko kër gi ca xel xob yi la woon ba léegi ñu ngi koy waxtaane léegi sax mu yëkkati ci kàddu yu gàtt suñu noppee ki mu jiital ci liggéey bii muy def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 kenn ku nekk xam na ni mi ngi doon dox jéego yu dëgër a dëgër a ci kër gi ba fu kër gi àggul woon àgg na fa bu xamul kër gi xam na ko baneen yam doole ko ci nag muy jiite jataayu tattum maam jaar bi nga xam ni képp kuy ahlu rijaal ak foo mën a nekk rek mooy sa kilifa loolu nag jéego yooyu mu doon def démb bët démb dañuy ñaan mu fulu ci barkeb ki muy liggéeyal kon su ko defee dina ma baal nag ndax site internet yi nga xam ni ñoo fi teew yëpp yëpp yëpp pour ñu lim leen rek dañuy bañ di tudd bii di bàyyi bee mu mel ni gën a lant daa am ci ñëpp a yam si ñoom ndax ku déplacé wu ba ñëw rek bët bi nii lay xool kii moom la ñu xolkee ndax yi fi jot a teew bari nañ trop suñu amaatee beneen jataay ca kanam danañ lim yëpp kon loolu man samay xarit ngeen da ngeen ko baal sëriñ bi naana na mi ngi sant di gërëm mboolem press bi fi nekk yépp mooy presse nationale ak presse locale bi nga xam ni ñoom ñoo ñëw di couvrir jataay bii ca mu xam ni ñii mu jàkkaarloo yàgg naa jàkkaarloo moom du benn at du ñaar du ñett ñeent yàgg naa jàkkaarloo ñoom bu nekkee ci liggéey bi nga xam ne ñun dañoo nekk fii ci quartier Rijaalu Laay bii ci Daaru Xudoos rek di yëngu sunub yëngu yéen ay jël li fi xew bu dee ci wàllu rajo la bu dee ci wàllu internet la bu dee ci wàllu télé la yéen a jël yëpp saare ko ba àdduna bi fu nit nekk rek mën a xam li am fii surtout surtout njaboot gi nga xam ni dañoo bokk si ñun ba pare génn ca ñu nekk sori lool ñu am pas-pasum ñëw fe teew ak seen jëmm waaye mënuñ loolu ñu jël seen i wërsëg di ko def ci liggéey bi ngir ànd ko ak moom lii ngeen di def dana leen jàpp ndal euh, lii ngeen di def dana leen jàpp ndal maanaam ñu jot dina tax itam ëllëg ndax euh, jataay yi njëkku doon du woon ñun ñoo ko yoroon ñeneen a ko yoroon nekkatuñ fi lu mu métti métti dañ fi jógee su ëllëgee ñeneen ñi fiy ñëw kenn du leen di woon lii daa weexoon ñun leen daa ñuul su boobaa loola danañ ko gis ku leen xamul rek yéen presse bii ñu gis di kilifa diine moo leen di ragal ndax euh, damay faral di wax ñi may waxal ni leen journaliste Serigne Touba ngeen ndax pas-pas bi kilifa yi am ci kër yi pas-pas boobu ngeen am jël ko di ko wasaare àdduna bépp jot kon amel nañ leen jukkal bu baax a baax a a baax Ah, ci loolu ndax dafa bokk ci liggéey bi am na télé yu fi jot teew wax nañ ko léegi sëriñ Maam Mor ñëw na fi ak euh, euh, Mbodj suñu xarit Ousseynou Mbodj ànd ak euh, Moussa sëriñ Moustapha ñu ñëw teewal fi Touba TV 2STV kenn ku ne xam na digganteem ak kër gi Parcelles mbay bekkaay ñëw euh, ñëw na fi ak bekkaay du parcelle rek ci mbooloo bi ak bekkaay voilà ay si nañ fi i tiiw yi ñoom it Alassane yabal na suñu xarit bii di Kandji ñëw na fi teew teewal leen ak euh, TFM ñoom it ñëw nañ fi yabal nañ fi ndaw euh, jawrin taala ñëw na fi ànd ak bu ma fàttewut beneen télé ak SIC FM Sen TV SIC FM waaw ñëw nañ fii parce que rajo bi ñëw na fi ak Sen TV encore kon ñooñu ñooy ñi nga xam ni ñoo fi jot a teew ci rajo yi site yi nag ba encore une fois dama leen di jégaluwaat ndax xam naa ni yéen daje ngeen fekk seen morom yoo xam ne bu ma ko nattee woon sax euh, lu mu xat-xat nañ ko def waaye li ñuy bañ rek di tudd kii di bàyyi kii mu mel ni gën a leen ñun ñëpp a ci yéen bu ñu sañoon. liggéey bi ngeen di wasaare kenn ku nekk danañ la tudd ba fu mbooloo mi nekk xam ne site jël na élément sàngam ci kër Serigne Dia jàllale na ko mu dem xool ko parce que loolu dafay nekk avantage bu am solo ci site internet yi ngeen di loolu xam nañ ko bu baax waaye lu jiw wu jeexu jógu kon loolu lañ bëggoon a jiital ci kàddu yi su ko defee rek ngir bañ a guddal euh, jëwrin Mamour Mbaye la ñuy jébal kàddu gi su noppee Serigne Cheikh Fane mii jëwrin liggéey bi. mi nga xam ni sëriñ bi moom la jël liggéey bépp teg ko ci loxoom ñun ñu di ko jàppale muy ku mel ni sëriñ Sam bi yor kàddu sëriñ bi ak suñuy rak ñëw di ko jàppale. moom la ñuy jàppale waaye moom mooy ki mooy ki moom la sëriñ bi jox ndax parce que kër gi noonu lay doxee kon bu sëriñ Mame Mor Mbaye tegee kàddoom sëriñ Cheikh Fatim moo yëkkatee kàddu santam ak soññee lu des sëriñ bi mottali kon ñu ngi jël kàllaama bi ñu ngi jël kàddu gi di ko jébbal sëriñ Mame Mor Mbaye jëwriñ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 indi ñu boole ñu waajur yi ba ci moom mii tey te kenn kenn mënu ko ci nan topp ci ginnaawam te fas yéene def ko suñu kilifa te bañ a juyoo ak moom fii ak fanu jëm bu ñu ko defee li lépp lu ñu sàkku àdduna ak àllaxira dañu ko am foofu laa yem asalaamaaleykum di sant yi sëriñ Mountakha Mbacké xalifa général di murit yàlla na ko yàlla yàggal te doon ko jàmm ak xéewal ak tawfeex defal ko ndimbalul yàlla ci amit ñi mu jawwati ñëpp ak tawfeexi sëñ Tuubaa ji wala fu nu waaye nekk te doon murit rek yaa ci biir lool di sant yit bu baax si Amadou Mahtar xalifa sëñ Modou di sant nag sunu yaakaar sunu xaalis sunu sëriñ Cheikh Moustapha Mohamed jëmm ju bu baax jëmm ju tedd jëmm ju am yéene ci lislaam am yéene ci doomu aadama yi am yéene ci njabootu sëñ Tuubaa yi te xàmmewul ak kii yaakaaral sëñ Tuubaa rek ni koy sant bu baax di ko gërëm man yàllaa ma natt ci moom léeg guddi damay toog rek sama xel la ci moom man damaa xoolal bët sa nit te du ma ko mu bët. daa yow la ñuy déglu. ndax da xalaat yoon wi rek. yëpp de yow la ñuy déglu. reçoit. xoolal nag di gëm lépp. baax na sëñ bi baax na sëñ bi baax na sëñ bi sëñ bi dana ñaan rek liggéey ma yéen a ji xam nañu di jóg lépp suñu chef di jóg lépp xol mhm, mhm, mhm. bëgg a dox suñu digal suñu pas-pas day day jaxase day jaxase nit ñi bëgg a dox suñu digal suñu Tuubaa bëgg a dox suñu diggante ak taalibe bëgg a dox suñu diggante ak ngor loolee day ku ne yaa ci mën a wattu sa bopp ku ne yaa ci mën a wattu sa bopp xaa ñu yaakaar Sëñ Tuubaa rek Sëñ Tuubaa bi nu yàlla baaxee tànnal na ko xam nga yàlla suñu borom dane yéen yi ci doomu aadama sa yokk Muhammadu Rasulullah sax séddu ma na war a mel aw fanam fu war a yem wërsëgam na war a toll jikkoom na war a mel ndax defee loolu nag bind Rasulullaahi ba teg ba jot yàlla yónnee ci moom bu malaaka mi ñëwee ni ko suñu borom mu ni moom a yónni lu ko lu wax mu ne nee na nga waaj waxtu bi jot na Rasulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam wuyu ko mel ni ndoxam bëtam daa turu ci ay tànkam mu dellu ci yàlla ak fitna mun ko ana waaja mun ko ma nga mun ko lu mu mun ko ma dalee def na lu mu a def mun ko lu mu lu mu doon def lu mu mu ne daa sigg di wax ak mun ko boo demee nee ko su dee na baax yéen a war a wax yéen ñëpp yéen dee mu ba ko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 Sëriñ Touba ñëw ne lekkum laay war a am juróom-ñeent fukk mu manqué fukk ak juróom mooy lem bat la doon lemoon ci at sëñ Mudu Mustafa ndax bi muy woo sëñ Mudu Mustafa di ko dénk sëñ Mudu Mustafa yett at la dese te moom boobu moom Xaadimu Rasuul fukk at ak juróom la dese fukk at ak juróom yooyu la tàppale sëñ Mudu muy fukk ak juróom-ñett yi mu wutu sëñ Touba leen jàpp daa dëgër nan mooy bu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 boo yore do do doog xasiya man ngaa dem ba loo am war a ko may gannaawal sëñ Tuubaa murit nañ seetlu sama doxin bu baax suñu dëggal sëñ bi lamp baabul muridiina wal muridaat moom mi nga xam doxoon ko moom cokkeer gi réer ci mbopp mi ba dem la ca desit sant la rek ak gërëm ak jaar billaahi sant nañ leen gërëm nañ leen ay góor dëgg ngeen borom yi Pastef ngeen mu si leen a taay sun dara te xàmmee leen lu sëñ bi def loo ak lu ñuy defal suñu bopp xam nañ ko bu baax ne ko sëñ seet Fatou waxee rek na la dem la ca des it dañuy bëgg bu subaa nag boo leen nii ñu ñëwee ñu teel na xëye dem na moo ci liggéey moom fa doon def xëy fa dem ñu àggale ji bala ñoo togg si ndogu man koo yi ñoo togg si ndogu balaa añu jot kenn ku ne bu la fa jant mënta fenk fexeel ma fenk la ci yoon loolu mooy ndigal jërë ngeen jëf ñoo ngi sant ñëpp ñoo ngi gërëm ñëpp yàlla nañ fekk na nga ñu déwén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 kon ñu waajal kii